الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي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 lobbu maam jaara yamul ci gaz ngir am wàll wu rëy ci pétrole bi feeñ suñu réew ci atum 2016 lañu taxawal lii di lobbu oil ngir indi xarala yu yees ci wàllum hydrocarbure ni ñu koy defee si butaan bi xarala yu bees xarañte jëfin bu bees tey dañuy taxaw ngir féete fépp sénégalais yi ci li ñu soxla suñu xarañte nag waral entreprise yu bari wóoluñu ba ci dëkk yu ñu wër tax na loobu maam jaara buso kenn mënatu ko wute ëllëg si biir dina bokk ci suñuy mbëbët ñu wër jaabe yi ci Afrique yépp ngir mën leen gunge fépp te ngeen yelloo li gën loobu maam jaara du jóg si di indi lu bees di xoolit fu gën a sori أعوذ بالله السميع العليم من alhamdulillah wala hawla wala quwata illa bika ya alil azim alhamdulillah nusalli wa nusallimu ala sayidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiina wa moolana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa man nahaja nahjahum wastanna bi sunnatihi waqtada bihi wa bihim bi ixsaani ila yawmi din tabaarakallahu mbokki Ali Imran TV assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla muslu ci cheytaan ak bakkan julli ci sangu-sang yi saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di jox kàddu gu wudi kàddu lislaam muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tabaarakallaahu nuyoo boobu ñu nuyu ko mboolem téléspectateur Ali Imran TV tabaarakallaahu roy borom bi subhaanahu wa taala ci benn ci waxinam yi nga xam wax na ko ci alquranul karim doon waxtaanee lu am solo moom subhaanahu wa taala ci benn saar ci saar yi nga xam ñoo nekk ci taatu kër gi muy suratul xadar ba mu koy présenté dafa waxoon ne tanazalul malaika war ruuxu loolu mooy sikkirul xaas baadal am tudd gi mu tudd ñenn ñi walla tudd gi mu tudd kenn gannaaw ba mu tuddee mbooloo kon tabaarakallaa bu ñu waxee asalaamaaleykum nuyu nañu ñëpp waaye du ñàkk ñi sette ca biir nuyoo ba ay nit tudd seen tur tabaarakallaahu ndax kuy def lu baax loo gis apprécier ko kooku war nañu ne ko jërëjëf kon tabaarakallaahu ñu ngi nuyu ñooñu ñëpp tabaarakallaahu jiital ci ñoom xaaji daam nekk fële ca Kaolack góor góorgóorlu ba am suñu contact ndeysaan di déggante ñoon fu ñu toll tabaarakallaahu di nuyu mboolem ñi xam ñoo nekk ci diaspora bi jiital ci sama waa ji Mouhamed Lamine Cissé borom sant boo boobu boobule te baax lool te neexu tur nuyu it Baye Diassé tabaarakallaahu di ko ziar di ko jégg lu baax. ci émission bii di ka kalimatul xaq muy la vérité absolue ci yéex gi mu yéex a ñëw nekkoon ci ay xat-xat rek tabaarakallaahu ndax léeg lekk yitte yi daf lay tënk ba danay jafe lool pour nga doxe yenn yi ñu ngi ci jégg lu baax tabaarakallaahu tey nag ñuy jàngat tomb bu am solo boo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu ko waxoon te mu lëmbee jamono lool nga xam ne ña ko jiitu woon ci ñoom ci ay xeet juru fa woon jàmm ña topp ca ñooñu juru woon jàmm kon xeet wu ñëwati soo ko dee defit du jur jàmm ci yow ndax yonent bi sallallahu alayhi wax na ne ida araada allahu hilaaka xawmin seydina muhammad ne na askan nare alaku bu nare yàqu la yàlla di def ci ñoom mooy awalu maa yusulu fiihim ne na bu aw xeet nare sànku lay njëkk yàqu ci ñoom mooy seeni xalaat mooy dañuy dem a dem ba kenn ku ci nekk ci ñoom boo dee xalaat xalaat bu ñaaw ngay def xalaat bu rafet dootu am ci pénc xalaat bu ñaaw nag weesuwul ne jullit nga gëm nga yàlla taalibi nga waaye gëmoo Seydina Muhammad loolu moom gàtt àlliwoo ak ñaaw xalaat weesuwu ko tabaarakallaahu bu ñu ko waxee di ko apprécier it apprécier nañu lu ñu xamul suñ doolelee borom it dooleel nañ ko ci lu ñu xamul kenn mënut a bëgg yàlla di ko topp te doo gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu xalaat bu ñaaw la nit it tabaarakallaahu lu mu mën di adresse ak lu mu mën di doon mu jëmee ci ñu baax ña dafa war a nekk lu rafet ndax xalaat bu ñaaw dafay jural nit ak deltu ginnaaw ndax yonent bi sallallaahu nag bu aw askan nare alku li mu njëkk a def ci ñoom mooy seeni xalaat dafay ñaaw ba boo yëkkatee ak kàddu sax mu jëm ci nit kàddu gu ñaaw lay doon soo yëkkatee ay jëf war koo jëf jëf ja day mujj ñaaw ci loolu mu ne yàlla boo defee seeni xalaat ñaaw daf leen di soob ñoom ñëpp ñu dugg ci xëccoo ñoom ñëpp ñu dugg ci xëccoo fu ñu toll rek werantee ga xëccoo ci la ñu nekk yàlla waxoon na ci alxuraan ne bu ngeen naree échec pur mooy dangay nekk di xëccoo xoolal tey fi ñu toll danañu yaakaar nit sax ba fal ko jox ko ndombal tànk yaakaar ne dana liggéeyal gox ba nga xamante ni moom lañ ko fal lam yor mu mujj ko soppi dugal ko ci xëccoo ak weranteeka wax wax ju ñaaw nga xam ne am na yeneen yu la doon xaar yu bokkut ak yi te waxoon naa bu yàgg ne képp koo xamante ni gis nañu ko ñi fal la benn garaat ci garaat àdduna yi moo xam garaat ba garaatu diine la moo xam garaat ba garaatu àdduna la te mujjoo fenn fu may di xëccoo wala mujjoo fenn fu may di simuler ci lañ la fal yëguloo liñ xew waxoon naa ko ca élection yële ñuy tuddee élection gox-goxaat yi ndeysaan bi ma seetaanee ñenn ci ñin fal ñu déclaré ne ñoom falu nañu ñu ànd ak seeni ñoñ di manifesté wu ak di gundaandaat ak a tëgg mën a ñi xamuñ leen di xaar poste bu ñu toll wala yaakaar ju ñu toll kuñ ko gàcc sa kaw amuloo lenn looy xalaat lu may di fecc ak a bég xanaa yëgoo di nga gàccu Babacar mu Sadiq keroog bu ñu ko falee garaatu ne yaa wuutu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa tiit jaaxle sa pexe mu ne jaar na fa pour mucc xëcc wut ko yuutu wut ko ñee ko gis mu doy la ñu fal ko ñun na contraire ba dañuy xëccu mbir xanaa du xëccu gi ñu koy xëccu moo tax buñ ñu ko joxee ñuy gundaandaat ba buñ la falee sax dangay ngay mujj nekk di nguuru te nguuru nag mosut jëm kër. léegi nag Babacar Sadiq biñ ko falee daf ne na ngeen xam ne bis ni ki tey tappal ngeen ma garaat bi waaye duxut sama man-man duxut it gën gu leen gën duxut raw leen raw li ngeen may dimbalee mooy su ma defee acte bu dul noonu na ngeen ma jubbanti ana ko ko nangu ci jamono. da nga wax sax wax joo xam ne ñëpp la xam ne lii waxi dof pur la même bu ñu la tappalee garaat boo xam ne garaat bi nit lañ ko waroon a jox ñi amoon yaakaar ci yow jox la ko nga wax waxi dof waaye kenn du la ñemee corriger te it doo may nit ñi fu ñu la corriger ndax la ngay tuddee tuddee ko ay conseil yow yaa leen di fal ba pare yaa leen di fay nit nag doo ko fay mu di la xalaatal ba pare di la wax loo naqari bëriwul lu muy am baaw kan sa dex ne nag man day li ma leen digal mooy. su ma defee naka sul noonu na ngeen ma corriger ne ma du nii su ma defee naka sul na ngeen ma jubbanti ne ma du nii waaye su ma defee lu baax nag na ngeen ko apprécier kon nag nañu bàyyi xel ne yo xëccoo moom musta joon njariñ yontu salaa sallam yàlla wax na ko ci alxuraan ne bu ngeen xëccoo da ngeen di échec mu ne sax lislaam bu ngeen ci amee ay dut bu ngeen ci amee ay werante wa in tanaasatum fi say fa ruduuhu ila allahi wa rasulihi su ngeen demee ba dara gaar leen te dellu ci lislaam dellu ci diine ba ngeen nar ca xëccoo vérifié ji leen lu ci alquran wax mooy delloo leen ko ci yàlla bu ñu demee vérifié ko ba gis na lii la alquran wax ñun ñëpp nañu tunkundoo ci la alquran wax doxal ko bu ñu ko vérifié gis na lii la yonantu bi sallallahu alayhi wasallam digle muy lu wér nañ ci ànd ñun ñëpp te bàyyi gis naa xalaat na jëfandikoo lislaam parce que ah xalaat amut ca gannaaw foofu la moo tax mu ne nag su ngeen xëccoohee da ngeen échec fa tafshalu alfashal mooy échec échec na kenn bugg ko ci dund kon tabaarakallahu ba yonentu bi sallallahu alayhi wasallam di yabal Maasum na jabal mu dem yaman tam tappal ko garaat bu rëy ne ko yaa ma fa war a yaa fa war a nekkal xeet wi a nekkal diine ji waaye kaay bul dem Maasum na jabal ne yonentu sallallahu alayhi wasallam garaat bi nga ma fal ndombal tànk li nga ma tappal nan laay def mu ne ko kaay bul dem ma jox la dénkaane jox ko ay nit yoo xamante ni ay xeetu nit yoo xam daf leen war a dimbale bokk na ci ne ko yërëmal jirim gis nga jirim ku mat a yërëm la gis naa ci téere benn waay boo xam dafa masa fekk ndab loo xam ne ay jirim dañ caa lekk ba des mu ñiit ko te tàgguwut ko tàgguwul jirim ya keroog bi mu génn àdduna xaw naa sonn ba dañu mujj safara teg ko ca biir ba mu doo génn àdduna te yàlla wax na ci alxuraan ne képp kuy lekk alalu jirim na nga loolu yaa ngi lekk sawara ci misaal naa ko tënkee noonu rek pour mu yomb naka noonu kuy lekk na la wóor na yaa ngi lekk loo xamul yaa ngi lekk fu mu jëmut foo xamul fu mu jëm yonent bi ne Maasum nu jabal bala ngay dem sàmmal foo fekk jigéen borom këram génn àdduna waaye na nga taxawee borom këram na nga ko dimbale ci dund mu ne Maasum nu jabal foo fekk koo xam gan la doxandéem la dafa tumuranke ñëw ci dëkk ba jàppee ko muy ngay njaatigéem yow ndax comme yàlla dafa laa fal ngay kilifa te kilifa yu bari war nañu bàyyi xel ci loolu yonte yàlla Moussa mas na wax ak yàlla ne ko yow man yàlla dafa am lu ma jaaxal ci saw doxalin mu ne ko lan la mu ne ko Firawna mii nga jox grade bu réyee nii ba pare bàyyi ko fi mu dund at yu yàggee nii ak lim mu woote ci yow wane ne moom daf lay wékk morom dem yàgg sax mu sax amutoo yow moom mooy yàlla ana rabbukumul a'la nga def fi muy jiire dund gu yàggee noonu mu ko naa la xamal benn ñaar mu ne ko mu ne ko Firawna li mu bon bon ñaari jikko neex na ci moom mu ne ko ban ak ban la mu ne ko foo ko man di fekk fajar buy jot day jóg mu ne ko ak ban mu ne ko foo ko mën di fekk du tëju day ubbi buntam koo bëgg a gis-gis ko homme politique yëpp war nañu roy seen bopp ci loolu. yow nga nekkoon fii ak ñun di xeex di xëccoo ñu fal la rek nga sensé protocole sensé numéro sensé lu ne bala laa nit ñee gis te ñi lay gis ñëpp sa njariñ dong lañ lay doyee wala boog lu bëri lañ lay dimbali ci wàllu adduna rek nga tëj say porte ngir ne dañ maa fal nguur gudut gu diine nguur gudul gu yàlla day folleeku yàgg-yàgg ci askan wi ngay wàccaat yontu bi ne maasum na jabal soo demee war a jëflante nit ñi te kilifa nga war a doon seen biir nooy def mu ne ko yaa rasulallaah loo bëgg wax mu ne ko soo bëggee wax wala nga bëgg a jëf foo koy teg mu ne ko ci alquranul karim mooy référence bu mag bi mu ne ko ci alquran laa koy teg lépp lu may def loolu day wax ju mën a wax ju wax ju wax ju wax ju mën a firi la xoolal li lëmbee suñu jamono jamono ju te li ñu tuddee constitution nga xam ne daanaka dañ koy wëndeelee nangam nangam moo tax gis naa benn benn borom xam-xam bu interview bu am solo mu ne nañ xam ne doomu aadama mënut a tëggal boppam charte yu ko mën a tënk mu ne doomu aadama munul tëggal boppam yu mën a tëgg loi yi mën tëgg doomu aadama mu ne ko kii bind doomu aadama ko mën a def wax jooju wax ju ma rafetlu la. mu ne ko soo demee booy àtt nit ñi foo koy xool mu ne ko ci alxuraanul karim mu ne ko bu fi ñëwut nooy def mu ne ma xool ko ci sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi li nga jàngal ma def ko ci loolu. mu ne ko soo ko ci gisul nooy def mu ne ko ma xool li borom xam-xam yi dëppoo ma jëflante ci ak ñoom mu ne ko soo ko gisul ci li borom xam-xam yi dëppoo nooy def mu ne ko ma xiyaas ko ma nattale ko ci xew-xew bu jaaroon ba jàll ma sukkandiku ca àtte ci nit ñi ba Maasum nu Jabal waxee lu Seydina Muhammad def na ko bis ni ki tey day Maasum nu Jabal sama yaakaar ci yow judd na mooy bis ni ki tey yàlla ubbee na la borom xam-xam nga ndax wax na ko ne ay critères yi nga xam ci ngay sukkandiku pour li ngay doxal mu jàll te danay wax lu bëri mu fekkoon nit ki li baax ci dundam baax ci diinam xelam boppam mën na ko xalaat l'islam du ñëw moom mooy ñëw rek orienté na lii baaxut lii baax na loolu bu ñu amoon temps pour développer ko incha allah da nga ci gis ay idées yu bëri ay xalaat yu bëri yoo xamante ne l'islam dafa ñëw dajji ko te jamono jam ko fekkoon ñoo ñooñu jamono ñoo jàpp ne loolu baax ci ñoom na kon nañu waat xel suñu bopp bàyyi bàyyiwaat xel suñu diine xam ne xëccoo amul benn njariñ mosu koo jur ci ñi jiitu woon te du ko jur ci ñi nekk nii xoolal barki dem ma jaay li xew suñu assemblée bi ni ñuy tuddee ay responsable tuddee ay homme politique yu am yaakaar ci ñoom ba yëkkati ndombal tànk jox leen ko mujj mujjoo fenn fu may saaga ak xëccoo ak xuloo ak wax joo xam gor su ko dégg day rus da dem ba yow mi fi dëkk sax da ngay mujj doo bëgg ñu ne yow kat ñii ñooy say kilifa ci wàllu nguur xëccoo mbokk yi nañ ko baax musul baax werante nañ ko baax mosul baax dàgg sante nañ ko baax musul baax su fekkoon ne xëccoo ak dàgg sante dana jur njariñ dañ fekk Seydina Muhammad teg ci diinam ji teg ko ci xëccoo ko ci werante ko ci saagante xastante waaye xam na ne amul benn njariñ jariñu la yow mi koy def jariñu la ñu ngi koy def daf leen di perte rek ndax alquran nee na su ngeen xëccoo da ngeen di échec dootu leen am benn valeur ci nit lii ki war a incarner valeur yoo xam ci la war a dox sensé couleuru réewam développer réewam su bëggee fab àdduna yëpp te ko ci xëccoo ak saagante ak xuloo ba boo waxee sax jëm ci parti ñu saagal wala nga wax jëm ko te ñaxas la te alquran su ngeen ko defee da ngeen di échec non seulement da ngeen eseg waaye wata sahabu riixakum da ngeen dem ba dootu leen am benn valeur dootu leen am benn personnalité ci nit ñi kon nañ ko moytandiku ñu ngi nuyu ñëpp tabaarakallaaw ñi seetaan Ali Imran di ko naan tabaarakallaaw ñi nga xamante ni ñu ngi commentaire fu ñu toll ak di wone seeni sem di jégalu ci ta tawaquf gi nga xamante ni émission bi xawoon na ko taxaw ay fan yu néew ay ngant àdduna la ak xat-xat la rek waaye sant yàlla bu baax tabaarakallaaw ñi ngi am yaakaar sax yeneen i émission yoo xam tabaarakallaahu danañ ko indiwaat ànd ci ak yéen am na émission spéciale bi ñu tuddee anbiya nga xam ne Seydina Muhammad ak mbokki prophète mi la ñuy waxtaanee incha allahu rabbi danañ ko waxtaanee ca dundam avant dundam fi mu jaar ba lañ ca xam waxtaanee yonente ya ko jur am na beneen incha allah bu ñu war a indi bu ñu tuddee al ihsan ñu war a waxtaanee li nga xam day defar jukkoog doomu adama day defar comportement doomu aadama in uridu ila al islaha masratu wa ma tawfiq ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi alladi aghnani wa a'azzani bi tilawati alqur'ani thumma as-salatu ala an-nabi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 lobbu maam jaara yamul ci gaz ngir am wàll wu rëy ci pétrole bi feeñ suñu réew ci atum 2016 lañu taxawal lii di lobbu oyo ngir indi xarala yu yees ci wàllum hydrocarbure ni ñu koy defee ci butaan bi xarala yu bees xarañte jëfin bu bees tey dañuy taxaw ngir féete fépp sénégalais yi ci li ñu soxla suñu xarañte nag waral entreprise yu bari wóoluñu ba ci dëkk yu ñu wër tax na logu maam jaara soo kenn mënatu ko wute ëllëg si biir dina bokk ci suñuy mbëbët ñu wër jaabe yi ci Afrique yépp ngir mën leen gunge fépp te it ngeen yelloo li gën lobu maam jaaro ju jóg si di indi lu bees di xoolit fu gën a sori